Bienvenue sur Salam Vision. Bye-bye. Euh, waajur ak sëñ Abdou Lahad ñëpp xamoon nañ diggante bi na mu rataxe woon mm-hmm. ku xamoon bëkk neegu sëñ Abdou Lahad bu ku tuddoon sëriñ Xabbaan Guèye fekk lu kër gi ba taay ñun kon sëriñ Abdou yàgg naa dem Touba daan na wax ci wax yi boppam naan man sama maam Cheikhul Khadim xas xasida yi mu bàyyi ci géej gi man Abdou Lahad ci laay jukki di waxtaan soo déggee ni muy napp napee ci xasida yi nga xam ni kii mm-hmm. li muy wax mi mokkaloon xas mokkaloon na ko loolu mu yar nu ci ñun raan sama baay yar nu ci bëgg loonu ko tey bëgg googu ñuy bëgg wun ko mu dimbali nu yebal nu ci foofu yëpp kon sëñ Ablaye relation ak Touba yàgg na non seulement relation ak l'islam bi yàgg na Alaaji Abdul Aziz Dabaax daan def fu ñu daje mën ko Ablaye jógal nga wax bu sama baay nekk bàyyi eh bàyyi mënu leen fi nekk may wax mën ko foo toog l'islam ne fa boo waxul l'islam jam la kon waxtasimu bi qablillahi jami'an wala tafarraqu gis nga may may nunu ko jël nangul ko gaay yàlla yi nga Seexul Xadim coow fekk kenn du ma. sama maam jooju euh, ku jàng ba muy dem tund jéewal ak ba mu génnee jéewal ku ne xam nga fan la jubal kokki sama maam jóge na kokki dem Louga ci guddi gi dem Ndar xoolal trace boobu euh, avant sëñ Tuubaa dem ci géej gi li ko jëkk dal li ko dal suul na fukki doom ak juróom xur mbàkke kon nga xam ne Serigne Touba sonnoon na waaye coonam googu tey defe naa nga nga ñaayu lislaam bépp ku bëgg ak ku nga ñaayu lislaam bépp boobu la koo koy maam Serigne Bass Khadim Awa Ba Seexul Xadim demal ñëpp géej raan sama bi muy dem ci géej gi asiru maa labraaru unaaka asiru wa zannal huda ani unaaka asiru da ngeen yaakaar ni maa ngi seen prisonnier waaye man duma prisonnier kenn Seexul Xadim dem na ba ci biir géej gi la daloon yonent bee ko dal dafa bañ nit ku ko dimbali ku ko fa dimbali amul soo déggee mu naan rafiixi kitaabalaahi wal Mustafa nabi rafiixi. rafiixi kitaabalaahi wal Mustafa nabi. wa saabu fil bahri hinaadu. wa saabu fil bahri hinaadu asiiru. maal abraari وزن منا هناك أزيرا وزير على الرائحين ويلا Bye.